ñu ngi ñëwaat ak yéen ci seen tafsirul quran bi ñuy amal ajjuma ju jot ci fii ci la maison du coran di ànd ci liggéey bi ak Reflect Studio nga xamante ne ni ñoom dañuy yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu photo ak kamera ak audiovisuel fépp fu ngeen leen soxlaa rek incha allah rabbi pare nañ pour wuy si leen fa mbokk suñu jotaay yële weesu ñu ngi nekkoon ak yéen ci suuratu shura tey nag dañuy toxu ak yéen dem ci beneen saar muy saar wi nga xamante ne nii mu moo mujj ci saar yi ñu tànnoon nga xamante ni ñu ngi déparé woon suuratul ana am tànnoon fa ay aaya firi jóge fa dem rant naka noonu naka noonu ba tey ni ñuy egsee ci saar wii nga xamante ne nii moom moo du suuratul xujuraat saar wii yàlla mu ko tuddee néeg ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan tafaral ay soxnaam yonent bi daan def saa yu amee soxna rek tabaxal ko ab néeg néeg yooya moom la yàlla subhaanahu wa taala saar wi muy suuratul xujuraat ci saar wi dinañ fi jàng ay yéeme bu ñu paree ku ci nekk càmbar xool xoolal saar wi yàlla fi mu tudde néegi soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yamu fa wax ñu jël ñu comparé yi yàlla tere ci saar wi ak suñu kër yi biir néeg yi biir kër yi mbokk yi tey aaya yi nga xamante ne nii moom jël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 حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوةً فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون mbokki gis ngeen yàlla subhanahu wa taala li mu wax nee na bu ñaari mbooloo ci biir jullit ñi ñaari mbooloo bu leen seytaane ma ne ba ñu songoo di xeex ñaari kër ñaari famille ñaari mbootaay ci dëkk bi di xeex wa in taifataani min al muminina qatalu yàlla nee na fa aslihu baynahuma na am menn mbooloo mu jug sol seeni daal dem jubbaale leen bu ñu toog seetaan benn baaxu ci waaw ñaar bi xeex am ñu war a mën a jug wax am ñu war a mën a jug dem jubbaale am ñu war a mën a jug dem defar defoo leen ko loolu yàlla bëgg ko yàlla nee na fu xeex amee rek ah, na am ñu sol seeni dàll dem defar diggante ya mbokk yi xool leen yàlla baat bi mu utilisé wa in taifataani min al muminin yàlla nee gaa yi gëm yàlla dëgg gaa yi gëm yàlla ñi nga xam dañoo gëm bu seytaane duggee seen diggante ba ñuy xeex mbaa ñuy xuloo na ngeen leen jubale fa aslihu ah baynahuma yàlla ne na ngeen leen jubale waye nak yalla nee bu ngeen demee di leen la mu am ci mbolo mo xamanteni ni ñom dañu bañ duñu bayyi dañuy xex waaw dañuy e rayante ñu jëm kaw jëm suuf ñu wax ak ñom ba sonu ñu bañ yalla nee na ñepp na ngeen bolo and xex bolo mom waaw téye ci loxoom fudd ndigam ba mu yem fa in baxat ixdaahuma ala al ukhra fa qaatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah yàlla nee na bu ngeen ko baax na ngeen lu ngeen man na ngeen ko def ba mu wuyu si ba mu ñëw jébbalu ci li yàlla bëgg te moom mooy lan ñu jubboon nekk ci benn dëppoo ci ay kàddu waaw loolu la yàlla subhaanahu wa taala jàngale waaw yàlla nag neena mbooloo moomu bañoon su ngeen waxee moom bu jaree ngeen coog moom ngeen coow lu mu jar ngeen def ko ba mu ñëw su ngeen leen tajaate nak bu ngeen di até na ngeen manu waaw na ngeen manu de fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin ya allah subhanahu wa taala nak neena su ngeen demé nak bay até na ngeen manu na ngeen jaar ci digg bi bu len jeng bu far parlo te mbok yi lolu mo yàq bi da nga gis ñu jug di jubale ji mais ñom ñu jug di jubale ji am na ko ñu faral ñom ñu jug di jubalé ñom ñu jug di defare yi amna fuñu far fu jàmm di amé kon mbokk yi nañu mandu xolal ay bi ci yàlla subhanahu wa taala tek innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqu llaha laallakum turhamun yàlla subhanahu wa taala ni na jullit ñi ay mbokk ngeen waroo leena xex xeex leena xulo a leena wékkante ay yett jéem leen a defar diggante yi lépp lu baax dee ci wax dee ci dox moo gën ngay dox ci ay coow ak féewale yàlla neen loolu baaxul yàlla neen na ngeen ko ragal ndax mu mën leen a yërëm te bokk na ci ragal ko moom mooy ñu jéem a dox jàmm kon mbokk yi suuratul xujuraat ci ñaari ay yoo leen départ ak yéen bu xeex amee ñu àtte te xam ni ñun ay mbokk lañ waruñu xeex waruñu xuloo mais xoolal mbokk yi jullit ñi ñoom ñoo féewaloo te jullit ñi ñoom ñooy xeex seen biir ñooy reyante seen biir loolu dafa wuute ak njàngalem alquraanul karim kon nañu delluwaat ci alquraanul karim moom mooy tax ñu nekk ci li neex yàlla ci li fi yonent bi salaa salaam bàyyi woon yal nañu yàlla subhaanahu wa taala dafa dégg ak topp yal nañu yàlla jéggal suñuy bàkkaar jéggal ñu suñu rëcc rëcc lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla lu fi dëng ñu xam ne ci man la di delluwaat di jaajëfal ñu àndiloon ci liggéey bi Reflect Studio yàlla barkeel تكاو تكانم إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته